ci benn discussion bu ma amoon ak moom ñu joxoon ma seen accord pour benn transfert boo xam ne s'il y a une offre bu intéressant au mois de janvier après la CAN 2017 2017 mhm. Gabon bu amee offre bu intéressant nañ la ba nga dem yàlla def am offre bu ëpp boo xam ne li ñu doon xaar sax amoon ko ñu téye ma mais ñibbisi am nu mu doxale moom ko moom mu ne ma africain yi mës a jaar ci club bi yëpp yaay ki ci gën a comprendre naa ban façon nit nga léegi faut juste être correct avec parce que doomu aadama laa matuma damay juum mais nit laa koo xam ne ku sàmm sama kàddu la bëgguma wax muy dem bëgguma kilifa jàkkaarloog man di wax muy dem donc tey jii ngi wax naan problème ak Aliou Cissé je pense que ni toogoon naa fi quartier général am lu ma seede ci moom c'est pas parce que tey woowatu la et que nit ñi njort nañ ne am na lu am ci digg bi diggante bi da taxawaat di ko sànni xeer du ma nit boobu tey je pense que ni Aliou c'est un grand frère frère il a toujours été c'est au-delà de l'équipe nationale les relations qu'on a et que je pense que ni tey dafa am ay choix yu muy def moom mu koy def man du ma du ma discuter ci loolu footballeur nag c'est normal des nga am ay gestes de frustration des fois nga am mm, envie eh, dugg xeexal sa réew fàtte sax yow say mbiru bopp donc mais comme li may waxaat encore une fois de plus amul amul problème sama diggante ak moom tey jii suñu daje woon ci mbedd wala ci lieu bu mën a doon ñëpp ñu gis que ni amul donc euh, je pense que ni loolu